mi wala jéyee mi ñëpp ci am wàll lii di wax joo xam ni law na ci askanu Sénégal saa yu jëyee amee ci réew mi ñu gaawantu ni ku ne am na ci wàll ci yenn cas yi sax état la ñuy joxoñ baaraamu tuuma wala ña ko teewal ci ab bërëb noonee lañ koy jàpp saa yu mbir amee bëri na ci atum 2023 ay exemple yoo xam ni mën naa firndeel wax jile mu di jëyee yoo xam ni am na ci wàllum paj mi di béba yàlla kon fële ca na Tiwaawan accident yu bëri yi mbëkk mi loolee lépp ci ndoddub état lañ ko teg ak ñi nga xam ni ñoom la àndal société bi saa su ne daf ci raxasi loxoom ba set wecc naka noonu kilifa diine kilifa aada ak nu mën di demee état moo am tort wala ñu koy tekki ndogalu yàlla loole di lu ñu mën a tuddee daw responsabilité façon xalaat bu ni mel dafa dem ba génne société bi ci responsabilité bi nga xam ni moom la am faw ñu ko jëfin ju ni mel di jël lépp lu ñu dal di ko tekki ndoddu état lii dëgg moo di nii ni état di mel ci société bi la des ndax moo koy dundal saa su ne ci bi muy doxee tànk société bi mu ngi dëkk ci daw responsabilité dafay dawaale itam pouvoir bi nga xam ni am na ko ci état di ko wax saa su ne li mu war a def genn wàll ci responsabilité bi société moo ko am moom mi nga xam ni moo war a tànn nguur waaye itam na muy doxee.